dimbalante am na solo lool ci jamono ju ñu toll loolu wala rek mouvement bii di ànd qui s'active sur le social éducation et environnement mais aussi pour les collectes des dons pour les hôpitaux dara mosquée, juma école prison pouponnière et internat donc yow mi may déglu si tu veux vraiment aider N'hésitez surtout pas à faire un don par Wave ou par Orange monnaie sur le numéro 78 433 44 51 le mouvement MAD dirigé par le président directeur général M. Alisek. Ce mouvement s'active pour le bien-être de l'humanité. Pour adhérer, envoyez un message par WhatsApp au 78 433 44 51 And Dibolente. Barna, ba tey mbokku téléspectateurs yi ñu ngi fii ci résidence bi ba léegi di wër kër kilifa diine yi fi teew si mu mel ne ñu ngi fii ak euh, Serigne Alpha Thiombane jóge ba Morolan ñu bëggoon ko laaj rek moom ban kilifa ban kër diine la fi teewal ak euh, lan mooy seen tànk dëgg-dëgg ñëw fii si màggal gi ak ñan ak ñan ñoo fi doon ñëw ba tey moom mii di sëñ Alpha Thiombane di fi ñëw bisimilah sang bi. waaw alhamdulilahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي تلسبكتاتيري نيسيبر تلبي دي اس اس تي في سيرين علين بدر جوب مي تيوفي اك نجابوت بيب نيوغي لين دي نوي دي لين زياره بو باخ دي اماتي مبكتي اك كونتانتي بو باخ بور نيو دجا وات في تي ماغال بي رن mu nek liggey bu rafet nuy contane ci yeen bu baax a baax di len ñaanal jàmm te di len ñaanal ak yokku ci télé bi nga xamni mom la len yalla denk mo melni ni euh, ñew nga fi ci sunu dal bi euh, ñun ñuy délégation bo xamni ñoo ngi joggé ci këru diiné bu mag di kër Maulana Alhaji Alfahima chomban ci région de Thiès ci euh, département Tivaouane ci commune u euh, Morolan ñu ñëw fi tey nag ci ndigalu xalifa ba di alhaaji Jibril Combaat mi nga xam ni moo fa nekk tey euh, teewal ko fii ci xadara bu màgg bi di xadara ak Touba yëpp yi fa tabaarakallahu mu nekk loo xam ni lu yàgg la loo xam ni wëllëre la ci seen diggante ak kër ga Eh, lolo tax tay ñu tew fi ngir matali eh, tank yoyu nga xamne mag ñi ñoko daan dox tay nek khalifa eh, bi yebal nu nu and ak sunu benen seidi bay Seydi Amin Chomban, bu Serigne Malik Chomban, ñu anda ak itam Serigne pap Alpha Assalis bu Serigne Muhammadul Amin Chomban, way ñu anda ak Serigne Mouhamadul Amin Assani bu Serigne Jibril Chomban ñu ànd ak sëriñ mam cheikh combaan ak euh, abdul wahab Chomban, ak sidi muhammad Chomban, ñu indi woon fi délégation bi euh, lii euh, moo nekkoon sunu teewaay fii ci màggal bi ren jërëjëf sëñ Alpha Chomban mu mel ne kon délégation bu mag la àndal ñëw fii nii jóge fa sore ñëw mais loolu noonu ñëw fii si Touba lan la mën a jur si diine bi ak boole bi mu mën a boole ji diine ji lan la mën a jur pour euh, xale yi ëllëg ñu mën cee jàng. waaw danu fekk mag ñi démb di rafetal seen ànd euh, loola dafay doon li nga xam ni dafay gën defar moralu ndawi diine ndax innamal muminuuna nu fa bay aslihu ax axwaykum loola euh, moom la mag ñi nekkoon di ko dundal mooy jullit yëpp ay bokk lañu Euh, tariixa boolewul mag yi woon li boole mag ñi du ab sëriñ woon du tariixa du parti waaye diine lislaam moo leen boole woon ak jëm ci yàlla loola itam dañu bokkoon nekk benn kenn ku ci nekk di bàyyi xel morom ma rawatina jamono bi ñu toll nga xam ni li ñuy tuddee tarbiya mooy moral euh, mu ngi bëgg a jeex te li ko waral mooy taqalikoo bi nga xam ni eh, nitu diine yi taqalikoo nañu ko ñu seet loolu ñu ne nag la koy mën a eh, defar réparer eh, yar bi tarbiya bi mooy moral bi mooy nañu fexe boole sunu bopp doon benn ci yar bi ci lépp loola moo taxoon mag ñi amoon alaaka ci seen diggante di ko doxante di fekkante ci seen jotaay yi di jàppalante di wane mbokk gi nga xam ne moo nekk ci diggante jullit yi Euh, loola itam doon loo xam ni kër gii di Touba euh, tey dafa bokk ci kër yi nga xam ni dundal nañu lislaam waaye dundal nañu ak bokko ci fànn bu ci nekk dundal nañu alquran waaye dundal nañu li nga xam ne mooy tarbiya mooy yar tey euh, ñépp nag maase ci ni kon tey jaadu na lii nga xam ni mooy màggalu Touba bu jotee këri diine yëpp ak fu waay mën féete ak tarixa boo mën a doon Euh, dinañu ñëw fekkee si euh, bis bi nga xam ni Serigne Touba moo wax ni nañu ñëw santalele ma yàlla euh, ci ay jaamu yàlla ak i ñaan rawatina yoor yoru tey jii mag ñi am ci yaakaar lool ba tax na kenn ku ci nekk ci kër gu mu mën a doon nga wut ci ab njaboot mu ñëw teewal la ci xéewal gi loolu itam bokk na ci li ñu gën a motiver ñu ñëw fii. jërëjëf sëriñ Alpha chamban mel ne euh, waxtu bi xanaa dañuy xoj rek xanaa nga ñaax comme looy ñaax ndaw ñi pour yu mel ni ak euh, looy tàggatoo rek incha allah. waaw xanaa di wax ni damay jëkk ñaax sama bopp ndax ci ndaw yi laa bokk ñu gën a góorgóorlu ci dox bokk gi ñu gën a góorgóorlu ci li nga xam ne mooy jaamu yàlla gi ñu gën a góorgóorlu ci jàppalante bi te ñu moytandiku li nga xam ne moo yàq jamono tey ta loolu liko waral yeb moy ñak kilifa ku amul kilifa ku ne setan don sa kilifa li nuy def yeb setan moy ci dugal moy ni dañoo topul li fi mag ñi bayyi kon nañu dello si sunu bop top li fi mag ñi bayyi sunu ko defé rek insha allah rabbi dinañu muccu te sunu adina dina neex ndax ku bayyi alquran ak sunna rek bayyi mag ñu bax ñi rek topoto ben yoon wo xamni dina la indi ci njariñ kon nek yalla nañu yalla dimbali nuy góorgóorlu doon taalibe rek te doon kuy tegu ci yoonu jub tey jubal rek loolu mooy ci am solo ñun ñëpp ñu yénente jàmm yërmante ci liggéey ak jàmm yàlla jërëjëf ba léegi ñu ngi si résidence Khadimou Rassoul xanaa ñu àggale rek doxantu bi ñuy doxantu ci biir euh, euh, délégation yi fi nekk incha allah ba ci kanam ñu dem seeti beneen kër diine incha allah jërëjëf waaw ba tey mu mel ne ñu ngi fii ci résidence euh, Khadim Rassoul ak euh, social shopping SSTV ñuy euh, topp di xool délégation yi fi ñëw ñëw si màggal gi comme booloo diine bi la wax ñoo tax ñuy wër di xool délégation yi fi ñëw mu mel ne ñu ngi fekk délégation bu jóge ba Sokone ñëw fii si màggal bi ñu ngi ak Serigne Abdou Aziz dem ñu bëggoon xam rek seen teewaay ci màggal gi lan la. okay. bisimillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina wa moolana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di nuyu bokk àddina bi yëpp ñu ñuy seetaan ñu ngi jógee Sokone kër alaaji Amad Dem radiallahu taala anhu ci ndigalu xalifa bi ci nga xam ne mooy suñu waajur Cheikh Omar Dem moo ñu yebal ñu ànd ak ay doomam ñëw teewal ko fii nga xamante ni mooy màggal gi fii nga xamante ni mooy kër Sëriñ Tuubaa gi moo ñu fi tax a ñëw eh, ñëw na fi nag depuis démb waaw ànd feek mbooloo mu takk dafa am ñu génn waaye ñu ngi àndoo mbooloo mu takk moo xamante ni ñoo ñëw fekkeel si li nga xamante ni mooy waa Touba ci màggal gi ndax relation bi nga xam ne moo am ci diggante kër diine yi benn kër Alaaji Amad Dem ak kër ki nga xamante ni mooy kër Sëriñ Touba radiyallahu taala anhu rawatina ki nga xamante ni mooy sëñ Muntaxa mi nga xam ne moo ko nekkal fi nga xamante ni mooy Touba te ñu koy ñaanal mu yàgg fi te wér lool euh, muy euh, demlante dikkalante bu am solo ci wàllu ak bokk ci wàllu diini ak ci wàllu relation bi nga xamante ni réew mi am na ko euh, de di wax ne l'islam bi ñëpp benn lañ waaye ku ne rek soo xewlee ñëpp war nañ ko fekkee ñëw teewale la ñu ngi koy ndokkeel bu baax a baax a baax di ndokkeel mbooleem murit yi nga xamante ni ñoo nekk ci àdduna bi yëpp waa di leen ñaanal màggal gi yal na ko yàlla nangu muy màggal koo xamante ni bu déwénee day gën a dàq ñu màggal gi waaye ñu ngi feddale suñ kóllëre bu baax diggante Sokone ak Touba ak waa Kër Alaaji Amadu Dem mel ne kër euh, diine yëpp benn la te kilifa yi xam nañ ko léegi ñun taalibe yi nga xam ne xamuñu bay gisee ne ne lan ngay ñaax taalibe yi. wallaay li nga wax benn la dëgg la kër yëpp benn la te ñoom xam nañ ko. ndax lu xew lu ne ndawal ku nekk nekk fa loolu nag euh, li ci taalibe yi war a jàng mooy euh, bennoo bi am ci nga xamante ni mooy kilifa diine yi ñoom ñu war a jàpp li nga xamante ni moo am ci diggante maanaam sëriñ bi ak taalibe bi mooy fexe góor góorgóorlu ku nekk du ñàkk fu nga féete waaye ñi ci des nga wormaal leen ku nekk nga jox ko cëram loolu am na ci solo bu baax a baax ndax nit ku ne am na fu la yàlla féetale ndax ku kenn ñàkkut foo yi am na ñoo xam ne sëñ Tuubaa lañ gëm te loolu la ñuy gëm di continuer di ko gëm waaye nag warmaal ñu ngi yeneen kilifa yi loolu moom moom taalib yi war nañ ci bàyyi xel surtout bu ñu gisee seen sëriñ ci di doxalee diggante nii war nañoo bàyyi xel li nga xam ne moo am ci diggante yi. jërëjëf sëñ Abdou Aziz comme délégation bu mag bi nga àndal bu doo mën nañu présenter ñi nga àndal ak yooyu ak kàddu yi ngay tàggoo. <coughs> ñu ngi ànd ak alaaji du Dem doom la ci xalifa bi ñu ngi ànd ak sëñ Bokar Dem moom it doom la ci xalifa bi ñu ngi ànd ak sëñ loo moom it <coughs> euh, taalibe la ci kër gi wax dëgg yàlla euh, am na ñoo xamante ni ñu nga ca dalwaay bale dañ génn <coughs> ñoom it wax dëgg yàlla ci délégation bi lañ bokk waaye euh, ñu ngi rafetlu li nga xamante ni mooy teewaay bi fii ndax lii occasion la may nit ñi àdduna bi maanaam wane ne ñii ñi benn lañ te moyen bi nga xamante ni ci lañ ko mën a jotee mooy yu mel nii lii ngeen di def mooy jokkalante ko ba àddina bi yëg ko ñoo leen ci sant bu baax di leen ñaanal ñu toog ba mu doon télé boo xamante ni àddina bi yëpp dañ koy seetaan ñu leen ci ñaanal bu baax a baax baax yàlla defal leen tawféex ak tasiir ci màggal gi bañ fekk waat di allah asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Abdou Aziz mu mel ne ñu ngi ci résidence bi ba léegi ñu ngi woon fii ci délégation bi jóge woon ba Sokone léegi dañuy génn rek dem xool yeneen kër euh, diine yi incha allah fi amaanillah ba ci kanam aja njàkkere jaayum kër wala terrain ci mim réew jeex fi wala location Moham xam appartement wala studio ak social shopping immobilier dañu lay jaayal sa produit na mu gëna gaawé tubar fakal mettre la en rapport ak suñu ay clientèle ñi nga xamante ne dañoo soxla kër wala ñu soxla terrain wala bëgg louer appartement wala studio bu ko défé ñu ñëw sa biir kër dal di lay fotol sa kër wala sa terrain wala sa appartement wala sa studio si ay photo yu euh, leer nañ ak ay vidéo yu doy war dal di koy posté si suñu page bi du social shopping immobilier Pourquoi de faits, Yen, 77 417 77 40 wala 33 835 08 67 Action social shopping immobilier jaay kër